rafaxtu yëkkatina xidmati sama liggéey man sëriñ tuuba ilal wasila jëme ko ca aji ommat sama ka xam ne mooy sama wasila man sëriñ tuuba muy yonent bi salla alayhi yal na yàlla dolli ca moom taraanga ak jàmm man yàlla mi nga xam ne ara mooy ngën ji gis te gis na ni taf dii la moo gën yëpp mu jox ko ngëneel yu màgg yooya rafatu yëkkati na man sëriñ tuuba xidmati samab liggéey ilal maahi jëme ko ca aji farja kéefër assanat tey wiir waayu màgg wa muy muhammad ci dara jaam wasaaxa sunu boroom jiital na di jalax muy dem li siwaana jëm feneen fudut finun ku man képp koo xam ne fanad ab naraa kon la narkat yaa ko jaxasoo woon ak borom ndar ba ñu yóbbu ko géej narkat yépp ci darajay rasulullahi yàlla jalaxal na ma leen man sëriñ tuuba wa moom yonente bi nabiyu mooy kañu solo yónni ko fi nun wa rasulu mooy ndawal yàlla lu màgg la am la daraja li mu yónni ci nun jaam ñi wal xalil mooy xaritab yàlla bu màgg ba mu yónni ci nun jaam ñi waxu moom yenent bi alhabibu mooy soppeb yàlla bu màgg ba te ci darajaam wa yu kasirul xalil la sunu boroom di barile lu néewoon ndeysaan taslimu baaxin musal aji des ga di sunu borom sunu boroom moome nga xam ne la yezalu masuta deñ mukk samada di aji jubluwaay bay aajo aajo yëpp wala mo faju des ko jubale sunu borom sunu borom moo mee nga xam ne mooy aji kowe ja daraja ak musalam ala nabi yal na ko dolle wàcce ci ku solo kii di muhammad wa rasuli ta di ndawam lu tedd lii di muhammad ahmada tey ku ñu sant ñu di ko wooye muhammad salaama yi musali alkarimi kay aji tedd di sunu ab xaar tey aji des di sunu borom assamadi aji jubluwaay bay ajo di sunu borom ala nabi yal na ko wàcce kuñu solo kii di muhammad wasilati kii nga xam ne mooy aji ommat sama di muhammad muhammadin tey sang bu tedd ba ñuy wooye ku sant ka di sayyidina muhammad salaama karimi yaari musali aji tedd ja di sunu borom assamadi tey aji jubluwaay bay aajo di sunu borom yaari woy yooyu waaye la tàmbali ca woy jëkk wa moo mujj ci woyu mujj wi waaye ñoo niroo ñoo bokki manda lépp day ñaan yaari terali sunu borom yay aji tedd sunu borom moom nga xam ne mooy aji jubluwaay bay aajo yal boole yaari tarangaam ya muy tarangay àddina ak jot àllaaxira wàcce ko ca Muhammad loolu la yaari woy yooyu di wax bokku lu ñuy firi waaye rek dañoo jëkkal wax jee ca woy wale mujjal wax jee ca woy wee lépp nag yonent bi rek la koy jubale moo tax li mujj ci téere bi yëpp sëriñ Tuubaa ma ngay joxoñ yonent bi ma ngay joxoñ màgg ak yàlla ga yooye rek la ciy tudd ba téere bi jeex xanaa ak teraanga yu màgg ya ko sunu borom moomee defal ci dara jay yonent bi yàllaahu yow sunu borom mi aji màgg ji nguur yaa yow mi ngeen ji aji kattan yaa muxtadiru yow mi moom mbooleem dogal yépp te di ko sañ def yaa man ki nga xam ne jooduhoo tabem gi yëpp te gaawe nga ko ilaya jëme ko ci man Serigne Touba yow sunu borom yow mu màgg moomu sak tabe danga koo gaawe jox ma ko man Serigne Touba naa jeytukal yow ma woo naa la bis naka tey wa xablal yawmi ak lu jiitu tey te wajaxal teli defal nga ma yow sunu boroom alfitra samay ndogu faw xa saw mi mu ëpp daraja samay koor